te loolu wax nañ ne ñoom ñi nga xam ne ñooy organiser football bi fii ci Mbacké wax nañ ne c'est première loolu musul am ci dans la département de Mbacké mu nekk fête boo xam ne tamit équipe yi bu mas a participer tey jox nañ la jeu de maillot ensuite jox tamit ñi nga xam ne si ne ñooy délégué yëpp ay bulletins ñu sol loolu lépp si ndimbalul président de la république di wax ne nag département bi ñoo ko moom ñun jeunes yi te xam naa ne kenn du jóge fenn ñëw di ñu ko defaral ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp kon Pastef bi nga xam ne moom lañu ñu war a am ba defaral ko suñu bopp mooy liggéey liggéey ak yar ak teggin te tamit génn ci suñu xel lépp loo xam ne si ne day yàq société ndax kilifa réew mi suñu xoolee ci moom ci ay jikkoom ci yar ak tegginam dinañ mën a jël ci moom exemple ndax moo ko indi fii mu ak si tey ñi ngi jëm nag ci ay élection le vingt 24 février di wax ne tey jàpp naa ne jeunesse su Mbàkke ñi ngi xaar président mu ñëw ubbee fii campagne am le 3 jàpp nañ ne tamit mbake gépp danañ génn tertu ko Touba gépp danañ génn tertu ko département bépp danañ génn tertu ko ndax def na fi lu ko jar di ko ñaanal aussi le 24 février mu gañe premier tour am nañ ci yaakaar ci saayir si ndax bilan bi mate na ko rusloo wuñu tamit ñun ñi nga xam ne ñoo porté woon candidature am en 2012 wax ne ko wax doon wax askan wi kii ku baax la. comme. autoroute Ila Touba 416 milliards. arène nationale. aéroport. pont de l'émergence su ma ko doon lim du jeex président Macky Sall bi ñu si ñëwee ba nag ni dara ci dund bi yokkuwul président Macky Sall dafa yayoo deuxième mandat li muy laaj ko yayoo. moomul sénégalais yi juru leen jëndu leen su demee ba mën a taxaw ci kanam sénégalais di leen laajaat deuxième mandat xelam dal na ba xam ne kon ne defal na sénégalais yi lu tax ñu war koo mën a delloo deuxième mandat bi ñu jox ko deuxième mandat bi. question d'actualité Madické Niang yéen a bokk benn zone bi ngeen defee meeting déjà commencé na am ay jafe-jafe porte na sax plainte waa APR nii dañoo ñëw jël place am na plainte waa APR. waaw nii da xam nga li am solo du loolu Madické ndar la dëkk daa nekkoon ci nguur nguur nag dafa neex boo nekkee ci nguur doo xam lu la të looloo ko jëlee woon ndar indi ko Touba waaye Madické amut sax am néeg Touba dëkku fi Touba Serigne Touba moo ko moom musta defal dara dëkk bi da daan wër di séddale xaalis si ñi ko gëmoon waaye fii kenn ku ne xam na ne président Macky Sall mooy ki nga xam ne si ne mooy gagné élection yi ndax sëriñ Serigne Mountakha Bassirou moo ko ñaanal ci làmmiñu Cheikh Bass Abdou Khadir mu ne ko Serigne Touba laa lay bàyyeel moom laa la dénk loolu wax la te loolu mooy li am solo ma digg ñaa nag dafa jommi ndax dëkk bi wax naa la boo nekkee ci nguur def fi douze ans te amoo fi dara loo xam ne si ne mas nga koo joxoñ ne yaa ko defal waa Touba lenn loo xam ne ma dikk ñaa ko fi tabax ab robinet buy xel ma digg ñaa mosu koo def Touba. kon moom lan lay porte plainte waa APR te moom leer na ko ne sax moom ñi candidats yi cinq candidats yi mooy jël cinquième mooy maanaam ndaare kon ñun amuñu lu ñuy mën a tontu Madické Niang